aywa un jour au Sénégal un jour dans le monde ñuy fàttaliku euh, euh, bokk na ci ñuy fàttaliku euh, ndem si yàlla Colette Senghor xam ngeen ne 19 décembre 2019 la génn àddina mu nekkoon soxna ki njëkk yore ki njëkk a nekk njiitu réew bu Sénégal di Léopold Sédar Senghor am na ñu bëri sax. c'était sa muse ndax lettre d'hivernage ak seen histoire ak ni mu ko ko déjee duñ ci sori dañuy dem xooli éphéméride du jour ñu dellu siwaat léegi fan ak juróom-ñett ci weer novembre atum 1978 lu yéemee xew ca Guyana mbooleem ña bokkoon ca secte bi ñu duppee temple du peuple xaru lu toll ci juróom doomu aadama ñàkk seen bakkan fukk fan ak juróom-ñett ci novembre atum 1999 Lamine Diack wuutu Primo Nebilio ma xam ni faatu na fekk mu nekk président de la fédération internationale d'athlétisme amateur fukk fan ak juróom-ñett ci weer novembre atum 1956 et élection municipale ñu amal ko ci Dakar SFIO ba Lamine Gueye jiite am 21 fekk na BPS ba nga xam ni Léon Boissier Palom moo ko jiite am 16 sièges fukk fan ak juróom-ñett weer novembre atum 1978 ay mbënd yu doy waar metti lool am ca Algérie juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom doomu aadama ñàkk seen bakkan fekk na juróom-ñaar ak juróom-benn yi dee nañu ca Alger. fukk fan ak juróom-ñett ci weer novembre atum 2019 ñu taxaw ci date bi ndax ci la Colette Hubert de Betteville génn àdduna ca Verson am lu tolloon ci juróom at ak ñeent moom mi doonoon soxna président Léopold Sédar Senghor. C'était une femme remarquable euh, je dirais même que c'est l'une des plus remarquables premières dames dans le monde et dans l'histoire jigéen bu jàpp njàmburam ba jëkkëram bi nga xam ne moom c'est un poète bind na ay téere yu bari ci moom di tagg rafetaayam ak mbaaxam euh, Senghor euh, bi muy sëy ak dafa jóge ci beneen sëy boo xam ne neexul woon mu am benn doom ak Colette Senghor doom boobu ndeysaan génn àddina Colette dafa nekkoon jigéen joo xam ne dafa gunge woon jëkkëram bëgg jëkkëram tubaab la woon nag tubaab moom tubaab la rek waaye Senghor Colette moom ku bëggoon Sénégal ku buggoon jëkkëram ku yàkkamti woon jëkkëram jóge ci pouvoir bi Senghor dafa nekkoon koo xam ne ndeysaan dafay tooñ di ree rek daf ko doon daf ko doon tooñ parce que euh, Senghor dafa dafa ñëw dugg maa ngi maître bu Kunta Diallo sax moo xam na passage boobu bi Senghor ñëwee xool télévision bi gis ci ay ay jigéen yuy fecc ah mu ne ñii de ay ay ay brésilien lañ euh, après Colette ne ko noo xamee ne ay brésilien lañ ñëpp xataay waaw ku wax ne rek euh, jigéen ju jege woon jëkkëram la euh, c'est bien difficile d'admettre plus jamais qui fait si mal. Ce n'est pas une phrase que je réclame, mais c'est plutôt la phrase de Madame Colette Senghor lorsqu'elle a eu à vivre ce drame survenu en 1981 où elle a perdu son fils unique Philippe Maguilène Senghor. Dans une correspondance qu'elle m'adressa à partir de la Normandie, deux mois et demi après ce drame, voilà cette phrase qui termine sa lettre. C'est difficile d'admettre cela. Et elle a fini par épouser dans cette épreuve cette célèbre pensée d'un personnaliste chrétien, Marcel Garçon, qui disait qu'il y a un lien de parenté intime entre la satisfaction et la mort. Et l'homme qui dit qu'il a tout ce qu'il lui faut est un homme en voie de décomposition. aywa 19 novembre bis ni tey euh, la génoon àddina moom Colette Senghor fële ca euh, France nekkoon euh, soxna ki njëkk jiite réew Sénégal di président Léopold Sédar Senghor Malick maa ngi koy wax sànq bokk na ci ñi ko inspirer surtout ci recueil boobu mu dippe lettre d'hivernage waaw. <laughs> waaw xam nga entre Senghor et et mooy li ñuy wax rek mooy li mu wax ne mu ne c'est une histoire de cœur. Mm-hmm. ndax boo ko déggee mi une Africaine me présenta sa jeune amie, une Normande, et j'eus souvent un coup de cœur. donc voilà ce que disait le président Senghor. Mhm. Euh, donc mu nekk vraiment ku nga xam ne euh, Colette pendant vingt ans yi euh, yi président Senghor nekk au pouvoir. Mhm. moom moo nekk ci mhm. une première dame bu nga xam issue de la la de la noblesse. mm normande parce que c'était pas évident. pour une négro pour un nga takk jigéenu tubaab bu nga xam ne dafa bokk ci euh, bourgeoisie euh, bu nga xam ne moo doon la noblesse euh, à l'époque mm-hmm. donc mu nekkoon itamit ku nga xamante ni am nañu benn bant muy Philippe Euh, Philippe aussi 23 euh, ans à l'âge de 23 ans la am accident mu mu mu génn àdduna mais bu ñu fàtte ni sengor avant euh, muy takk Colette amoon na beneen soxna mu Ginette Eboué la fille de Félix Eboué qui était gouverneur du Tchad à l'époque ñoom ñaar am nañu aussi ñaari bant xam nga Senghor ay doomam ñu bëri ndeysaan xamul waaw rek la am alors am na Francis Arfan Senghor kooku mooy taawam mm-hmm. te pourtant taawam mi ngi dund mais kenn xamu ko mm-hmm. Francis c'est c'est c'est vraiment benn genre euh, nit la bu nga xam ne dafa xawoon ak coupé wu ak famille ak ak famille Senghor mm-hmm. euh, na lu nekk pour Francis ñëw ci wetam. Mm-hmm. mais Francis dafa ku nga xam ne beneen nit la woon. Mm-hmm. artiste la woon. Euh, papay euh, Akon ñoom ñaar ñoo doon ànd di jouer sur moo doon moo doon moo moo doon moo doon idole parce que da daan guitare mais bu daan guitare sax. nit ku bizarre la bu nga xam ne. bu daan xalam dafay def ni tournée wan wan public bi ginnaaw. di di di di di xalam. problème les gens ont tout fait pour le rapprocher euh, de la famille mais euh, ba léegi même dëju papaam ñëwul euh, beneen doomam bi aussi muy Guy Waly Senghor moom i tamit ndeysaan une fin tragique cinquième étage le jóge daanu ci la gaañu donc Senghor n'a pas été très heureux avec ses enfants mhm. mais en tout cas Colette c'est l'amour mhm. alors que Ginette mhm. c'était un mariage de devoir comme mhm. il le disait merci beaucoup merci beaucoup Malick Thiandoum euh, ci leeral yooyu 7 heures jot na ba tegal ñetti simili le 7 heures info la ñuy tàbbi ànd ci ak Cheikh Tidiane voilà euh, ñu tàmbalee cette heure info bi ak euh, njiitu réew mi démb conseil des ministres.